عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة illaa billahi al-ali al-azim alhamdulillah alhamdulillah allazi alima ma kaan wa ya'lam ma yakun wa ya'lam ma lam yakun wa ya'lam law kaana kayfa yakun kawana al-akwaan wa dabbara al-azmaan fala yataqayyad bi zamaan wala yaxtasu bil makaan wasalaatu wasalaam ala kansil xaqaayiq wa maadini daqaayiq mawlana muhammad usulul raqaayiq wa ala alihi wa asxaabihi xaqa qadrihi wa miqdaal azim wa baad fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yow borom bi eh, subhaanahu wa taala yow yàllay waay njëkk yi yàllay waay mujj yi yow ki sàkk yow ki amal yow ki fent yow ki nekkaloo yow borom bi nga xam ne yaay cay dara jiitu la yaay faw yaay moos dara du fi mujj li fi ne yëpp yaay ko ko fi andi li fi jóge yëpp yaay ki ko yóbbu li fi desandi yaay ki ko bàyyi fii lii waaj dem yaa ki koy tukkal sa jaam bi kese mi ngi ni ànd ay moromu jaamam di sukk sa kanamu màgg bi eh, di la kañ ci say tur yu mag a màgg di la bàkk ci sa melokaan yi sell yi di la jiin ci sa jëfi rafet yi di di nangu di yeesal suñ jébbal xam ne yow rek yaay yàlla ku dul yàlla du yàlla yaay borom sañ-sañ yaay borom coobere yaay borom nommeel loo dogu mu nekk yow yàlla lépp loo ànd mu sotti loo àndul du sotti mu sa jaam yaa ngi nii di mokk mokklu ci sa kanam di jéggalu di balu di lañaan ñaan yow yàlla xeetu say yonent bi sallallahu euh, jàq nañu tey ji tey tëlbët nañu kenn talatul kenn amatul dal jiixi jaaxa te dara waralu ko bu du sa seen kaw sa ndogal bi nga leen nattal ñu ngi ñaan yow yàlla na nga oyofal li yow yàlla irfa maqtaka wa ghadabaka anna wala ta'ruzna bima fa'ala shufa'u minna sa mer sa sànj na nga ko yëkkati ci kaw ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam njuumte yooyu suñu moromu jaam def wala ñun suñu bopp suñuy njuumte yàlla bul ñu ko jàppe bul ñu jéppi bul ñu alak bul ñu toroxal bul ñu yàq suñu mujj bu mu ñaaw suñu pas-pas yàlla bu mu ñu rëcc mu yow borom bi gannaaw loolu li tax ñu daje fi tey mooy lii nga xam ne dafa lëmbee Eh, àddina lii feeñ ci jamono te kenn miinul anamu feeñin gi ñëpp jaaxle nañu ñëpp jàq nañu bugg cee joxe ay firnde eh, doomi aadama yi xam fu ñuy teg seeni tànk li ñu war a jël ñu jël ko li ñu war a tëjël ñu bàyyi ko li ñu war a def ñu def ko li defu ñu def ko lu defuwul ñu daal di bàyyi loolu rek moo waral jotaay bi tey nag eh, li ngeen yëg moom la ñëpp yëg li ngeen dégg la ñëpp dégg amul kenn ku ñu yebal ci man ne ma defal walla bul def waxal wala bul wax du président de la république du gouverneur du ministre du préfet du sous du maire benn commune du benn délégué de quartier mooy benn doomi aadama bi nga xam ne jël naa ci sama soloy bopp jiital yàlla teg sayidna muhammad sallallahu alayhi wa teg ci yërmande jëm ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa doomi aadama yoo xam ne bu ñu loroo mu diis sama kaw bu ñu amee fitna mu jafeñ sama kaw kon lépp loo xam ne dafa leen di fanqal fitna fanqal leen musiba ak bala dama cee war a xëy di ci gont yendu ci te nar cee fanoon tamit lépp luy gaañ ummatu muhammad man duma ko jéem bu fekkoon tey wóor na mane man sama xol bi sama dënn gi buñ ko génnoon toojatee ko ummatu muhammad jëfandikoo ko daañu mucc man ma dee te ñi am jàmm billaahi wallahi tallahi man danaa ko def askanu muhammad nañu am jàmm rek askanu muhammad nañu am jàmm lépp lu leen di andil jiixi jaaxa wala lépp lu leen di andil jafeñ wala lépp lu leen di andil fitna wala gaañ leen man danaa ko daw euh, duma ko def incha allah taala man ma loru moom ma dàqal ummatu muhammad daal di loru sallallahu alayhi wa sallam te ummatu muhammad doowul ñuy julli rek yonent bu nekk sa jamono ñu ci ñëw ci yow lañu bokk kon yahuud yi tey ummatu muhammad lañu nasaraan yi tey ummatu muhammad lañu ñii jaamu buda ummatu muhammad lañu ñii jaamu xamb yi ñii jaamu xërëm yi charlatan yi féticheurs yi lépp luy dox ci kaw suuf si tey muy nit muy jinne muy kondorong muy kiyaaf yi muy njuuma rabu jéeri rabu géej lépp seen yonante mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonante yàlla def ko yóon noonu rab rahmatan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waxul lil muslimin lil alamin lépp univers bi asamaan ak li mu ëmb suuf seg la mu ëmb jéeri bi géej ji Muhammad message am mooy na ñëpp am jàmm na yërmande yàlla wàcc rahmatun muhdaat kado yàlla ci yërmande gi mu jox doome mbindee mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana doon julli ba branché wu ci alamul euh, ci àddina yi gën a kawe walla ci pays yàlla yi gën a kawe mu dégg jigéen doomam di jooy ci ndiggam mu koy kam-kamal ngir mun a mottali rakk bi ak Seydina Muhammad yonent daa dagg aaya bi rukku sujud selmal pour yaay boobu mun a wéeg doomam kon lii daloon na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu rek ëmbal waaye déedéet du moytu leneen du ragal leneen déedéet ñeme dee ragal dee déedéet li dong la dajale ay doomi aadama te kenn ku nekk xelam mi ngi sikki sàkk mi ngi déngi-déngi naa nuyoo bu ma nuyoo naa naan bu ma naan naa lekk bu ma lekk ndax dinaa delloog jàmm ndax bu ma delloog jàmm kon may leen luy dalal seen xel peuple kenn du ko tiital askan kenn du ko tël badloo lu leen di may stabilité may leen dalak tal Euh, lii la yàlla digut sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem na bay wax sahaaba yi laa tatamaaradu fa tamradu fa tamuutu même di feebar feebar lu bu leen ko jéem bu la feebar dalal neel feebar bi danga génn sama yaram danaa wér danaa dem danaa defaat dana sumb dana sotti danaa jéem dana antu danaa tàmbali te dina yegg nee na fa laa tatamaaradu bu leen di feebar feebar même bu ngeen feebaree xeex leen feebar bi wala tatamaradu bu leen feebar feebarul bu ngeen ko defee fa tamradu da ngeen feebar de même bu ngeen feebarul da ngeen feebar te bu ngeen feebar lu ci tegu fa fa tamuutu benn ngeen dee xaqiqa wala ngeen dee ci maana kenn dootul génnati dootu leen doxati mbokk dootu leen demati néegu yàlla du ngeen am dal du ngeen am tal te bu baax du ngeen am aljanay àddina ndax aljanay àddina mooy xol bu neex mooy xel gu dal sa xol neexatul sa xel dalatul loo dese ci rien yal na yàlla dimbale ñu yal na yàlla sàmm mala bi feeñ ci jamono tey ba kenn ku nekk tal boppam kenn ku nekk xinti njabootam kenn ku nekk seet ni muy muccee ak ni muy muccalee ni muy rawee ak nu muy rawlee am na askan am na xeet am na waaso am na giit dañoo xaaj mbindaafoonu yàlla ay ekip yi dafa am mbindaafoon bu nekk benn secteur bu mu nekk ci biir mbind yàlla gi incha allah maa ngi koy tàmbali ndànk-ndànk ñu bàyyi ma xel bi ci njëkk mooy sadiyaat sadiyu ci arab mooy ween sadiyaat mala yi am ween ci la nit bokk xar ak béy nag ak gëléem ci la bokk gaynde yi segg yi tene yi bukki yi muusi xaj yi tilli lépp lu am ween moom la ñu tuddee sadiyaat nit baahima la ci baahima yi waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi nekk bi mu nekk nit moo may nit valeur bi or may yàlla ci Seydina Muhammad moo tax doomi aadama gën lépp lu dul doomi aadama xanaa yàlla lépp lu am ween dafay tëb bu tëbee dafay ëmb bu ëmbee dafay wasin bu wasinee dafay nàmpal moo tax doomu ñu ko te xayawaan naatiq wala xayawaan daahik mala bii ree wala mala bii wax waaye mala la comme mala yëpp kii benn gurub la yii dafay lekk ndawal kese ni gaynde ni léopard ni guépard ni tigre am na yoo xam ne ñoom li ñuy lekk mooy ñax rek naka fas naka mbaam naka ñay ay léebéer ay koj béer ay njamala doomi aadama nag mooy benn mala goo xam ne ni muy lekkee rabu ndox noonu lay lekkee rabu jéeri ni muy lekkee lu ñaxe noonu lay lekkee lu ndawale moo tax mala bu yàlla bind doomu aadama moo ci gën a danger tooke bi nekk ci yaramu nit nekkul ci tooke yi benn mala kon bu demee ne ba doomu aadama am am beneen tooke bu ko mun a faagaagal tooke boobu lan la ko lu lekk nit danga yokk am na ay cër ci biir doomi adama lu mu laal moo gën a bon grand nox te mi ngi ci doomi aadama muy ay caslaayam kon benn groupe baa nga ne mooy saddiyaat mooy yi am ween dañuy tëbante dañuy ëmb dañuy wasin dañuy nampal am beneen groupe bu ñu tuddee euh, tuyuur mooy njanaaw yi lépp lu am dunq dana tëb waaye bu tëbee day nen nenam def koy boof soit mu naaw soit mu ñàkk naaw comme am na dunq rek tuyur lañ koy tuddee ganaar du naaw waaye ci la bokk day nen day boof day tostan autriche mooy jàmbu jóob autriche kono sogoti mooy picc bu mag boobu te du naaw mooy autriche waaw moom munta naaw day daw rek waaye day nen day boof kon yi am dunq yëpp bu ñu tëbantee dañuy nen dañuy bóof seen nen mu toj génn ay cuuj yooyu tamit seen euh, ruwaayom bopp lañu ñetteel bi mooy li ñu tuddee zawahif moo yiiraam te am ay écailles am lu ñagas comme mbomb di am geen yooyu danañu tëbante waaye bu ñu tëbantee ba ëmb ñoom dañuy nen waaye seen nen duñ ko bóof dañuy gas suul ko lu mel ni mbëtt lu mel ni bar mboose lu mel ni sindax lu mel ni yelt lu mel ni nduumaar lu mel ni taw lu mel ni mbonaat lu mel ni kakataar yépp bu ñu tëbantee ba ëmb dañuy nen waaye seen nen dañuy gas ko bu période bu dikkee mu tàng mu toj mu génn doonaan bindeef boobu ñeenteel bi la ñu tuddee xacharaat mooy insectes yi yooyu itam dañuy nen li ci ëpp insectes yi jargoñ ci la bokk weñ yi di naaw ci la bokk soccant ci la bokk melentaan yi ci la bokk sànqaleñ ci la bokk xorondom ci la bokk am na yeneen yu ñu tuddee barama iya mooy luy dund ci géej tey dund ci jéeri mbott ci la bokk moom lañ gën a miin ñun njëlbeenam ndox la mujjam jéeri la moom lañ tuddee barama iyaat luy boole jéeri ak géej am na beneen ñi koy tuddee fitriyaat du garab te du mala moo lu mel ni champion am na beneen yi ñuy li tax ñu toog tey nag mooy ñetti yi mooy li ñu tuddee bactérie ak li ñu tuddee euh, virus ak li ñuy tuddee parasite bactérie àddina bi noonu la ñu ko tuddee kenn ku nekk noo koy prononcé ñi ne bactérie ñi ne bactéria am na yu ciy jëriñ am na yu ciy loraate yi ciy jëriñ mooy yi nekk ci ron gàncax yi di namp lekk bi ci suuf si bu deeyee gàncax bi lekk ko moom te mu mel ni engrais boo jëlee reenu dugub bi da nga ci gis ay tomb tomb mel ni ay per yu ndaw ñoom ñooy dajaloo di dund li ci biir suuf si bu ñu deeyee garab bi dundee leen mooy tomb tomb yi ngay gis ci reen kooku xeeti bactérie la Louis Pasteur di kilifa gu mag ci France savant la moom la tuddee institut Pasteur bi ci weti hôpital la Dantec ci 1850 moo njëkk a découvrir ndeke bactérie mooy dugg ci meew soppi ko muy soow lépp lu ënn cere bi ënn na bactérie bi ënn loo moo koy def xamira ceeb bi forox nag ndawal bi mu nëb na kenn mënatu ko lekk bactérie moo koy def te mu ngi ko gis ci 1850 moom lii Pasteur français la ci ginnaaw loolu 1880 beneen savant daal di feeñ ci Allemagne muy Albert Koch ab lu ñu tuddee ŋokobe dem ba doo mën a tàllal say cër yëpp dafay banque comme arc ndeke parachute moo koy def moom it am na yu baax waaye am na yu bon bi tax ñu daje tey nag mooy virus waaw mooy virus àddina bi virus lañ koy tuddee xeet la balaa ñu koy tudd seetal bactérie bi ñu doon tudd appareil bii moom moo ko mën a gis appareil bi moom moo dafa am ay bët lii la ñu tuddee microscope ci anglais wala ci français microscope wala ci arab al mijhar boo yurndoo fi mun nga ko sewal mun nga ko yaatal boo ko sewalee boo ci tegee ñey dafay tuuti mel ni melentaan boo ko yaatalee boo jëlal melentaan teg ko daf koy ngandal mel ni ñay moom la ñu tuddee mu qaar ak mu haddal kon lii doonul doomi aadama buy sànni ay kàddoom ci mbedd déedéet déedéet lii dama ko jàng dama ko xam maa ngi jéggalu ci wax bi euh, euh, lay la da ko dajale da ko yaatal dana mel ni këll ci nuux dana mel ni leefaaj ci tàllalu waaye dana mel ni leket ci diir boo ko defee ni lu mbir mag boo ci degoon ñay dana ko tuutal ba mel ni melentaan nga xool ñu li ñu ci bëgg yëpp boo ci tegoon géléem mun na ko ndawal ba mel ni melentaan waaye boo ci tegoon melentaan mun na ko ngàndal ba nga foog ne lii ñaay la nga gis ay butitu melentaan gis liquide bi ni muy dawee ci biir yaramam gis ay bëtam gis gémmiñam gis fi muy génnee sobe di kër suufam ay bët la am bët dafay réyal téeméeri yoon yii bët dafay réyal junni yoon boo ko taalee contact baa ngi fii mun nga ko yégal Euh, mun nga ko wàcce mu mun nga ko yégal mun ko wàcce mun na def ni mun na def ni mun na yéeg mun na wàcc mun nga ko toxuloo nu mu la neexee te bi boo ci tegee bactéria bactérie fii lañ koy gisee waaye boo jëloon vingt cinq mille ñaar fukki junni ak juróom ci bactérie nga tëral leen mi ngi tollak benn pouce pouce P O U C E te benn pouce deux virgule cinquante quatre centimètres nga teg ci ñaar fukki junne ak juróom ci bactérie guddaayam du mën a mot loolu kon li naka la ko bët kese di gisee xam-xam rek moo ko mën a gis ci lii ngay seet gis ko bactérie ñaar fukki junni bactérie vingt cinq mille ñaar fukki junni bactérie ak juróom boo ko rangalee guddaay bi du benn buus lay doon benn puus arab ne buus buusa benn buusa boo ko doon seet suñu centimètre tey deux virgule cinquante quatre centimètres lay doon li tuuti na de te pour nga gis virus appareil bi dafay ngandal dix mille fois électronique lay doon donc dafay ngandal dix mille fois parfois ba quatre-vingt mille fois nga soo gis mala boobu kon lii lan la mbindaafoon la ci mbindaafoon yàlla moo tax aaya alquran daal di dëgguwaat wa maa yaalamu junuuda rabbika illaahu yàlla rek moo xam ay mbindeefam ni mu tuutee kenn mënul imaginer lii lan la ñoom tamit virus yi dañoo am askan am waaso am xeet am giit lii ngeen di jëlee ni moo nekk ci biir léegi boo jëlee appareil bi ana sa appareil boo composé léegi allo Sydney foofu fan la Sagne Bambara la fan nga nekk maa ngi Australie ci benn seconde bi nga dégg ko virus moo koy yóbbu li muy daw bi nekk ci biir cobalt rek mi ngi daw 4720 mètres lay dagg ci benn seconde kon boo ne allo Kaolack deux secondes pour mu dugg Kaolack te Kaolack saañ 12 kilomètres boo ne allo Rio de Janeiro fan la Brésil foo may woo ni Moscou la seetal ca Amérique latine fii ca Moscou au nord ci benn seconde lay daw virus moo nekk ci biir tele baa ngi ni nga joxoñ ko mu daw génn dóor ko mu tàkk nga bosaat ko mu dóor yëkkati baat bi nga bosaat dóor mu yaatal écran bi nga bosaat dóor écran bi gën a fàtt wala mu gën a leer nga dóoraat mu fay ko nga tëdd ci kawlal bi nga tëdd ci kawlal bi néeg bi tàng nga jël commande bi nekkoon ni takk kilim bi takk 18 19 yaa ngi bës tëdd sa kawlal wiris bi mi ngi génn di dugg di def li nga bëgg jigéen bi ñëw ñu ne école lañ koy defal jël virus bi dóor ci biiram mu génne doom bi x la wala y la benn doom la wala ñaari doom la ay góor la wala ay jigéen la bés sàngam weer sàngam la war a ñëw àddina jox la bés bi jox la heure bi virus mooy def li virus yi kon am na yu baax virus am na yu bon virus bii nag lëmbee àddina ni te ko defar de waa euh, jaragul ñuy jiiñante bu ñu nekk ci biir gaal ëmb bi yaa ko andi ëmb bi andiwu ko bàyyi leen ba yegg ci tefes bi euh, waaye biir gaal bu ngeen fa xeexee euh, du jur jàmm de bàyyil ba yegg ci tefes bi fii mu nekk ñoom xam nañu kan moo def lii ñoom xam nañ nuñ doon def ba lii feeñ dañoo dem ba de ci seen biir laboratoire léegi boo jëlee fas nga boole ko mbaam mu jox la berkelle yàlla binduloon berkel def defi doomu aadama moo feeñal mala boobu wal xayla wal biraala wal xamira nga jël kéwél boole ko kooba mu jox la koj biir du kéwél du kooba nga jël mbaam xux boole ko mbaam àll mu jox la ngir je du mbaam xux du mbaam àll ban nga ciy lekk léegi tàmbali nañu di boole xaj ak xar di boole xaj ak béy waaw li muy juri lan lay doon ndax lii du lor ndax lii du gaañ doomi aadama di bëti mbindeenu yàlla zahara al fasad fi l barri wallahi wallahi wallahi lii virus bi ci biir laboratoire la rëcce waaye nag bopp buur bu néewee boppi baadool la ñuy xotti mi ngi nii ñoom ñoo ko def pour cacher yi ñun ñoo koy fay ay jullit lëmm mën a tëj kaaba gi mën a tëj rawda bu Seydina Muhammad zawaayaay ci àddina bi yëpp tëj ko te loolu lislaam xamu ko lislaam bëgg ko lislaam attanu ko dangay ngay dem ba tey jii day mel ni gaz lañ la nandal dangay dem tey mel ni ñàngoor tookeem lañ jël sosla ko ngi xam nga ne lislaam tey bit bu rëcc bu mag rëcc ko pas-pasam kaaba gi ñëpp yaakaaroon bu ñu nee bay pomp kaaba gi ne dañu fay ree jàngoo lu ñu deseeti ci ngëm lu ñu deseeti ci ngëm bu zamaan yi fa ñu tëdd ci bàmmeel ñu koy tëj ràpp ne microbe ba mi ngi fa kon ña fa nekk lan lañti waaye boo leen wuyuwul ci seeni solo ñu ne intégriste la dafa bëgg a sànk ummatu dafa dëgër bopp dafa contre nguur nga def lu lay may jàmm nga jàll sa entourage nga bañ leen a lor li dong la de waaye pour pat pati wala am xel ñaar ci yàlla wallahi lazi laa ilaha illa hu nekku sama dënd waaye balaa ñu may diaboliser di ma boole fu ma bokkul suba ba léegi renseignement yaa ngi naan moom dafa dëgër bopp de dina sànq réew man ma sànq man balaa may am sama néegi bopp hôpital laa tabax def ci cent onze millions kenn du fay ba may dem ziyaare bi ambulance bi sama doom ako jiital ma topp ci buñ gisee lu ñu xamul ñu jël ko yóbbu ko suñu hôpital yi école lu passé juróomi téeméeri nit ñëpp di jàng ñaata at kenn du fay man may fay kooku dina def luy gaañu réew sant social ñëpp di jàng togg fóot ñaw kenn du fay kooku dina def luy gaañu réew waaye nag buñ ne kenn ku nekk reyal sa noon teel sa xarit nga denc sa xarit la waaye noonu keneen la yal na yàlla dimbalañ virus bi li tax ma ci wax am na ñuy jëlaat wax bi di ko jéem a diriger déedéet lii dama ci def étude ba bind ci téere bind naa ci téere dangeen ko jot du yàgg incha allah bu ma yàlla maye ma mool ko waaw virus bi corona bi li muy tekki mooy dafa am lu ñu tuddee couronne buur yi ñoo koy teg seen bopp day mel ni lu am ay béjjén comme buur bu jigéen bi nekk Angleterre ñu ko tuddee la reine Elizabeth anglais naan ko Queen Elizabeth wala Elizabeth II comme mbaxana bi muy teg ci boppam couronne boobu dafa am lu mel ni ay béjjén couronne làkk la askan mu ne dafa am noo ko tuddee ñii ne couronne comme suukar wolof ne suukar arab ne sukkar anglais ne suuga français na sucre nii la dafa am tur yoo xam ne àddina bi yëpp ñoo ko bokk tey jii boo ne xorom ku dul olof du ko xam boo ne lamdam ku dul tukulóor du ko xam boo ne ku dul bambara du ko xam boo ne sel ku dul français du ko xam boo ne salt ku déggul anglais du ko xam waaye boo ne chlorite sodium ñëpp xam ko parce que mooy ismul ilmi ñëpp ko xam ñëpp tur boobu lañ ko xamee ci biir xam-xam corona bi tamit baat bi noonu ñi ne koron ñi ne corona ñi ne corona waaye lépp li muy li muy junj mooy lu am ay pointe comme ay béjjën moom dafa rond mais dafa am ay béjjën béjjën yooyu ñett façon béjjën laa ci gis agum waaye du jomb mu am yeneen benn béjjën bi dafa mel ni comme njoxu ñay fi fi muy jeexee dafa am bën-bën Euh, mu tàppandaar léegi moom buy lekk boobu lay lekk bu lekkee ne ba doylu buy buusu bi muy buusoo dafa sew comme boti comme ni te poson lay sotti bu dee ne ba yëg lu koy gaañ si am na beneen bit beneen liquide lay tuuroo dugg ci biir te liquide boobu dafay fàtt nit kon kay dee dikk na bon bu nit di nokki dafa am lu ñu tuddee saxiiq ak zafir mooy nokki ak noyyi nokki ak noyyi du benn nokki mooy xëcc noyyi mooy génne ju ngelaw boo xëcc buñ ko xaajee téeméeri bërëb vingt pour cent yëpp oxygène la booy nokki donju ngelaw bu dugg vingt pour cent yëpp oxygène la soixante dix pour cent yi nitrogène la zéro virgule zéro quatre pour cent yi carbon la un pour cent bi des mooy guus guus bi boo jegeñee géej sa ngelaw gën a duus euh, guus boo soree géej nekk ci gànnaar bi sa ngelaw ñàkk gën a guus kon 99 pour cent yi nii lañ ko séddale booy nokki tomb ngelaw bu dugg 20 pour cent yi oxygène la 19 euh, sos euh, sos tis awa oni mooy 79 de pour cent yi nitrogène la carbone bi zéro virgule zéro quatre cent la un pour cent bii des mooy guus guus bi booy booy noy lii génn oxygène bi vingt moo duggoon waaye seize mooy génn seize pour cent mooy génn kon moom lii dugg bàyyi na fa euh, quatre seize bi moo génn waaye nitrogène bi li dugg mooy génnaat 79 moo dugg 79 mooy génn moom dafa gunge oxygène bi daal di ko encadré nekk garde corps am ba mu def liggéeyam ànd ak globule rouge yi dem ci yaram bi moom mu génnaat bàyyi ko foofu ndax oxygène du tàkk mais dafay may doole luy tàkk moom mu gunge ko ba du gaañ yaram bi bu demee ba placé ay pion moom mu génnaat bàyyi ko foofu waaye booy nokk liy dugg carbone bi 0 virgule 04 pour cent mooy dugg waaye lii génn moo bëri mooy 4 pour cent mooy génn. léegi nag guus guus boobule moom ci lay làqatu dugg moo ñu naan na nit ñi sore waaloo tuuti waaye moytu ko he yàlla rek moytu ko yàlla rek bu ñu waxee foog ñu topp leen waaye moytu ko léegi man laal naa lii yàlla tere bu ma ko yoree boo ko laalal nga jël ko ñëw naa ci banque bi dugal sama loxo génnee sama kart boobu nu mu tudd cher gab carte gab bi nga laal ko ñu ngi sa loxo nga dugal gab bi génne keneen ñoo dugal gabam taqal taqaloon na ak kart ko mu dugal ci boson yóbbaale na ko lii noo ciy mucc ñoo nga ci essencer bi bës nga bouton mu yóbbu la troisième étage keneen bës ko mu yóbbu ko dixième étage jël na ko kon li fi nekk mooy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa xam na yàlla rek mooy almutakabbir ngand du kenn ku dul yàlla tey Amérique lan la am ci ay cas ay treize mille léegi moo yëg quatorze mille États-Unis d'Amérique dem ba seen président waroon a dem campagne Colorado ak Nevada def ko fomm mu gisee kilifa bu jóge Brésil kooku ñibbi ñu ne am na ko mu ne moo amoo ko de waaye nañ ko seet lu ñu lay seete comme am xam nga ne amoo mooy président bu Amérique bi nii seetal Malaisie réew yi raw ci njàngale ci àddina bi ñeenti jiitu ci la bokk premier ministre bi Mohamed Mahathir daf ko dal fu mu ko amee fu mu ko amee buur bu Monaco prince bu Monaco Albert laal na ko fu mu ko amee union européenne ki topp ci kilifa bi am na ko fu mu ko jële waa lii nag buy tàbbi ci buur yi ñi nekk ci biir néegi seen lépp mot waaw ñi buñ ci muccul ñun ñu nekk ci der yi ci tap yi nekk ci marché yi fu ñu ciy mucc kon fen fenn mooy nañ dellu ci borom bi subhaanahu wa ñu tuub ñu jéggalu ñu balu yàlla ne ko juum nañu tooñ nañu yàlla lii ñu teg attañu ko la laa xawla wala quwata illa billah pexe du jëriñ kàttan du fës bu dul lu yàlla ànd buñ ko defee ñu am jaam bu ñu ko deful yàlla li mu mën a dóoree jaam te jaam du ci mun a teg bët ay million ngi million la wa maa yaalamu junuuda rabbika illaahu lii dañ ko doon defar ci laboratoire seet yeneen euh, di yéem a def ay découverte léegi avion yi naaw nga xam ni ki koy dawal ci suuf lay toog naka lañuy defee lu gën a gaawlo ba mun a yóbbu nit ndax am ngeen ay drone yaa ngi toog ni drone baa ngi tiim ni saañ yaa ngi toog fii di ko di ko di ko doxal mu jëlale li nekk ci kaw saañ yëpp te yaa ngi ci biir néeg fii li koy doxal est-ce que bu ëllëgee duñ mën a defloo ci avion yi avion de guerre yi mu dem bombarde ñëw sa doomi réew du dee portable yi nga toog fi daal di composé na nit bonjour nga def BON mu daal di dóor ci appareil bi fële Paris BON bon bonjour JOUR loolu la de bonjour nga dóor fi bonjour léegi mu génnee Paris bonjour lii yóbbu li virus la seetal gaawaay bi cobalt lépp lu lépp lu bula ci àddina bi moom la lu bulo loo gis 80 pour cent yi cobalt la moo tax ñu naan suuf si la planète bleue al kawkabul azraq li may wax nii li yóbbu baat bi rajo yi di ko dégg mooy électro onde magnétique yóbbu sama baat bi bu xuuree ñu xam ko bu ma muuñee ñu xam ko bu ma saqatee ñu xam ko bu ma tisalee ñu xam ko moo koy yóbbu nga toog fii tey sëñ bi de lu weex la sol maa ngi nii toog nii New York di ko seet mu ngi nii tàllal na baaraanam baaraanam weer bi de nii la melte lii yóbbu image boobu mooy électro-onde lumineuse te moom cobalt moo nekk ci biir te cobalt bi virus mooy liggéey ci biir kon li gaawan kenn xamu ko kon li fi nekk mooy nañu tuub nañu tuub àddina gi bonug waay bon yi mënu ko jeexal waaye baaxug bonug waay baax yi mooy yàq àddina ñi war a wax ñi warut a wax ñëpp a ngi ŋawti ŋawti wax lan moo la jooyloo ki ma warut a wax moo ma wax ki ma waroon a wax waxuma wax nañ ma fuñ ma warut a waxee wax nañ ma nuñ ma warut a waxee wax nañ ma te jotaguma wax nañ ma ba ma paasee ñépp tey ñii ñu ngi politiser ñii ñu ngi woote bugg a feeñ jëlal kaamil bi nangam jëlal xobi daqaar bi nangam daanul ci biir géej gi siin am na géej de siin ca penkoom fa kii nekk japon digganteem ak japon mer fala nekk boo wàccee gànnaaram fa la ñoom indonésie nekk ñoom philippines fa la nekk ñoom malaisie fa la ñu nekk singapour fa la nekk somatra fala nekk boo ñëwee ci sowam tuuti ay Birmanie fa la ñu nekk ay Laos Laos ak Lagos du benn ndax di nga dafa gaaw sëñ bi neen Lagos fa la nekk de Lagos mooy ex capital bu Nigéria kooku LAGOS la Lagos bale Laos réew la LAOS la mi ngi ceeti Birmanie di nga defa yomb léegi dégg li sëñ bi yow déedéet li ma man xam naa ko daanuma ci sareet <laughs> maa ngi jéggal nga jégal damay kaf ak yéen ngeen mën a récupéré wu wax bi euh, dem na maa ngi jégal aywa euh, yu ni mel Chine rëyaay bi mu rëy danga boole Sénégal teg ci Mauritanie teg ci Mali teg ci Côte ci Guinée Chine moo leen gën a rëy waaye euh, mbokk yi yont yàlla Moussa ba mu jógee Égypte di dem Israël waa Israël dañoo dajaloo ne kii ñëw juddu jéeri la yahud la waaye judduwul fii bu ñëwee rek dana jël nguuri Israël te kon ñu ñàkk fayda ñu dem ci benn nitu yàlla bu ñu dee Balaam bun Baura ne ko yow am nga lijaaba ñaanal yàlla alag leen bu ñu yegsi mu daal di bañ ne aw yonantu yàlla nu ma koy ñaanale ñu topp ko di ko kalli kalli di ko jéebaane alal di ko jéebaane ay teraanga ba nangu yéeg ci kaw daju ba tiim Moussa ak bani Israël ñu ngi ne la jóge Égypte di ñëw mu commencé di leen móolu yàlla soppi la mañam mel ni ventilateur bu ñu dëpp ci ginnaaw gi la waaye du upp ci kanam bu bëggee na yàlla def leen mu ne yàlla def ñu yàlla wàcceel ci ñoom mu ne yàlla wàcceel ci ñun ñu ne ko def nga musiba li li ngay wax yëpp jëmu ci ñoom ci ñun la jëm mu xam ne alkul mu nekkoon pexe moo def mu ne kenn ku baax ci ñoom bu njaaloo rek yàlla alag leen jël leen seen doom yi jigéen yi ngeen solal leen malaan yi gën a rafet na oyof ngeen jox leen ay palaat ñu teg ci ay lekk jaayi foofu dañoo xiif kenn ci ñoom bu njaaloo ci ñu baax ñi waxuma ñu bon ñi de kenn ci ñu baax ñi bu njaaloo seen àdduna tas ci la ñu demee di jaay di sàgganu di jaay di sàgganu kenn ci ñu baax ñi fa nekkoon njaaloo kenn benn bés bi yàlla wàccee mbas seen kaw comme feebar bi ñaar fukki junni nit ak ñeent ñoo de waaw naka nag bu ñu demee ba tey dañuy dañuy wut ay carte pour ay góor jigéen ay état taxaw ne dañuy daganal góor jigéen góor ak góor mën nañu ànd jigéen ak jigéen mën nañu ànd buñ ko nëbb na ko état yi signé fu ñu jëm réew yi ko am ci Europe ni ngay paase di seetaan làmb ni ngay paase di seetaan cinéma da nga dugg ci ay béréb noonu ngay duggee seetaan ay nit ñuy sëy fukki góor ci benn jigéen fukki jigéen ci benn góor ñuy reetaan di def la nekk waa jàmm dina am foofu ba bi xewee ci bànni Israël Moussa ne yàlla ah li xanaa injustice la kii def simpi ko yow yàlla wan ñu ko ñu rey ko yàlla ne kon ma nekk naa feq di te man tere naa leen naa feq bu ma kalaamee waa ji ngeen rey ko kon li ma leen tere woon ne bu leen jëwante bu leen ayibalante na ngeen suturalante kon man ma xaawi seen sutural mu ne ko waaye ne ñi ngay reyaale te bokkuñ ci nag yàlla ne ko dégg naa ko fii Moussa tëddee noonu ndekk ci wetu néegu melentaan la benn melentaan génn jekk ko ne ko kuuc Moussa jog ñu xool daal di raate la melentaan yëpp ñu de yàlla na ko bi la ci matt mën a woon ci yam mu xam ne yàlla tontu na ko kon lii ñuy dund tey dégg ngeen junjo bi de tey guerre amul fenn ci àddina bu lu ci monde islamique ki ki yore fetal Muhammad la ci ki mu jëm Muhammad la ki yore fetal Ali la ci ki mu jëm Ali la seetal nord Mali ca Kidal ca Tombouctou ca Gao ña reyante ñan lañu ay jullit kese ku leen di jaay ngànnaay nasaraani nañu jël seen uranium nañu jël seen bauxite or bi diamant bi pétrole bi gaz bi nañ ko jël jox leen ay ngànnaay ñu faat seen bopp comme amuñ fulla yóbbu nañ alal bi waaye ñu ngi koy fajoo de léegi am na ay réew ci Europe tàmbali nañoo lakk seeni niiw yàlla bu mu yegg si fi seetal Libi ni mu neexee woon tey seetal am na ku nekk côté Benghazi Khalifa Haftar ñoom ñoo koy jox ngànnaay muy rey ay mbokkam ñi nekk Tripoli di rey kële ay jullit ñooy reyante ci biir Libi talatuñ dara boo demee somali jël oto def ci bomb ñoo taxaw ci marché rey ay innocent jullit yee koy def boo demee Yaman ñaata at ay xale ay jigéen ay marché bomb nañ lépp alal gi ñu waroon a tabaxee ay usine ay juma ay jàkk ay daara ay hôpitaux yëpp jënd nañ ko ay ngànnaay ay avion ay char de combat ay Hound avion yi nga xam ne dañuy dem seen bopp noonu ay missile ay avion Jaguar ay MiG ay Mirage Super Standard Fouga Phantom Sukhoi ñu ngi jënd di bombante rek kan moo koy def foo xam ne ñun fa la ñu yaakaar ne bu ñuy julli fa la ñuy jublu demal Palestine bés bu nekk yahud yaa ngi rey jullit dem ba di leen fekk ci biir Jérusalem ci masjidul Aqsa fi yonent bi demee woon asamaan di leen sotti lacrymogène benn jullit doo Suuriya naka noonu ñu ngi dee ñaataat ba bàmmeelu Bilaal bomb daan na ci Bilaal bon Rabah lan moo deseti ci l'islam Irak dafay tëmb ci kaw pétrole tey màbb nañu Irak am na àlloo yu nekkoon dëkk mu ñu tuddee Muusil ak Ninawa fii bàmmeel yonte yàlla Yunusa nekk àlluwa yoo xam ne ñoo jëkk yonte yàlla Ibrahim ca Soumarioune tey àlluwa màbb nañ la yii ñu sàcc ko yóbbu ko seen musée Iran ñu embargo ko Afghanistan rey nañ ba mënatuñoo rey Myanmar rey nañ ba mënatuñoo rey Igor ca Chine ñu ngi rey bi xamatuñu lu ñuy def lépp jullit yaa ngi ne tekk kenn waxul kenn waxul ñax bu wow na tàmbal naa lakk bu tooy bi te Seydina Muhammad nee na sallallahu alayhi nee na yàlla tere ma fekke ñu ne ko lan la mu ne a ngi ñëw ku fi fekk juróom yi dal la ñu ne ko mooy lan mu ne lam tazharil fahisha fii qawmin qat xata yulinu biha illa fasha fihimul awja lam takun fi aslafihim nee na bu ñu demee bellu araam njaalo sàcc fen luubal wuruj wor naa baax le na ñëpp yàqule nee na bu ñu demee ba tollu foofale yàlla dina wàcce ay awja ay métit ay feebar ay jàngoro ay songoŋ ay ragg ay rafli xiif mar boo xam ne musta nekk ci ñi leen jiitoon li ngeen di xale yëpp ak li ngeen di mag yëpp li xew ci eh, ci jamono kenn musu ko gis kenn musu ko dégg guerre mondiale xew na fi 14 ni melul nii 39 40 45 xew na fi lii xewul yàlla andi na ko ci ñun kon nañu jël suñuy précaution bàyyi fanatisme bi bàyyi euh, kàddu yi nga xam ne kenn xamul fan la jëm lii du mbiru solution bi jabaraat moo ko yore déedéet lii du tariyaax moo ko yore ay kawar ci nangam yorewul lii ay pelem seex yàbbi yorul lii nuuru ci géej bi tàll sa benn doo yorul lii weñ bi boo bëggee mu jàkk jox ko tëgg bi der bi boo bëggee mu jag jox ko uude bi bant bi boo bëggee mu jag jox ko lawbe bi sëru rabal bi boo bëggee mu jag wëñ bi jox ko maabo bi alquran bi jox ko sëriñ bi ko xam jàngoro bi jox ko docteur bi lii mbiru docteur la nañ ko bàyyee docteur yi dimbale leen ci ñaan dimbale leen ci alal fital leen may leen xel te ŋawti ŋawti bi du solution ci lii de li ñuy tudd ci rajo bi yàlla xam ndax loolu la wala du loolu waaye nañ ñaan yàlla li ñuy bàkkee bu mu yegg si kilifa yi OMS organisation mondiale de la santé nee nañ Afrique bu ngeen yeewul li nekk ci biti dana yegg si de te bu yegg see yéen da ngeen mel ni suy bale yàlla tere du xam ngeen suy bale waaw mooy xeeti puuta boo xam ne boo ko defee ni jur yi dañuy daanu di dee rek dañuy daanu di dee rek kon dégg nañ ko coronavirus bi moom mi ngi tëdd ci biir cellule li li dajaloo doon bindeef moom fa lay tëdd doomi aadama bu nekk mi nga am mille million millions cellules la muy man muy yéen kenn ku nekk mille million millions cellules la cellule la arab di dee xaliya alf million million xaliya benn seconde bu nekk cent vingt cinq mille dana dee li may wax nii bu génn wax doo dafay dee bu génn wax dafay dee bu may nelaw nag bu làmmiñ dootul dee booy xool benn xool boo def benn xale bët dee na benn xool boo xool dee na seen ba ngeen di jóge Kaolack essence bi ngeen def seen oto wàññeeku na xanaa ngeen def ci beneen essence waaye bi ngeen ci defoon am na lu ci jóge kon nit ki dafay consommer seconde bu nekk cent vingt cinq mille xale dana ko consommer yow ne ngay consommer beneen judduwul bi judd am na ku nekk ci biir di ko lekk moom du yem ci ndawal du yem ci deret du yem ci globule rouge yi du yem ci globule blanc yi du yem ci plaquette yi moom mi ngi dem tëdd ba ci biir euh, cellule bi lii dee li ko waroon wuutu mu lekk loola la li deewagul mu rey ko ak kii ne bu ko yàlla yebale ci ay nit fu ñu jëm kon solution bi du dara kenn ku nekk ci ñun lu guddi lëndëm dugal ci ndox mu sedd bi nga laal ko ñëw ci lëndëm bi yëkkati sa loxo jàkkaloo xibla mi allahu akbar yow yàlla irfa maqtaka wa gadabaka an na wala na maa fa ala shufaau min na wala taaruz na bi maa ala shufaau min na irfa yëkkatil maqtaka sa sànj wa mer an ci ñun wala taaruz na bul ñu bi maa faala sufaa min nga teg ci bisimilahi shaafi bisimilahi kaafi bisimilahi muaafi bisimilahi xayril asmaay bisimilahi rabbil ardi wa samaay bisimilahi lazi laa ma ismi shay'un fil ardi wala fi samaay wa samin alim auzu bi kalimatillahi taamati min sharri ma xalaq wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim euh, lii ci xam li ñu wax set gi nañ ko def waaye pour ne moytu na la ci musal ah déedéet wax ju bëri ñu bàyyi ko Euh, ñi ci war a wax wax ci ñi war ci wax ñi daal noppi tey nag kenn ku nekk jonga pour duufal sa poos milliards yi nga dégg million yi nga dégg diw def na diw wax na euh, dékk micro ñëpp bu leen ko def mun leen tere ñëpp waaye bu leen bàyyi ñëpp tamit daal di wax yéen journaliste yi maa ngi leen di jéebaane ci loolu di leen puukare woon nag euh, bu ngeen teeltoon a jóg lii dina métti lool ci réew mi suñuy frontière mënuñu leen garder frontière yi dafa yaatu ñi ñu ko andil ganna yàlla mooy nasaraan yàlla na yàlla euh, bu fekkee am ngeen question ma tontu ko bu ma ko xamee bu ma ko xamul na ñu ñaan ngeen ñu yeewee ko cheikh lii la woon de incha allah taala incha allah jërëjëf euh, ah akañ yeg fi allah taala yaa man yara ma fi dami wasmu antal li kulli ma yatawaqaw يا من يرجى للشرار كل ما إليه مستعان الزور يا من خزائن الرزق في قال كن أمنا فأنا عندك أجمع ما لسوى فقي إليك وسيلة فبالإتالك فقد فوق ما لسوى قاقل بابك هيلة فلن يرد فأنا وقوم ومن الذي أدو أعتسني كان فضلك فقير حاشا لجودك أن تقنت أسن الفضل أزل وأسو بذل قد وافت بابك ألما أن تزل أن فو وجعلت مؤتمدي عليك توكلا بصرك فبحق من أكتب أصو إجلنا من كل ضيق مخجلتنا يا اعتصمت بالله وصجدت بالله واستعنت بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تغيب رجاءنا ثبت آملنا اقض حواجنا أدمنا نورنا واغفر جرائمنا واقض حواجنا يا رسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شيء صلاة نسخنا بها كل شيء يا عم بدي ملكوت كل شيء وآل اللهم صل وسلم تسليما على خادم الحضرة القدسية أين رحمة ربانية أمين أسرى إلهية أغوث المملكة السمدانية بساعة الخلة تاج المحبوبية الفاتح الخاتم مولانا محمد أبي القاسم وعلى آله وأصحابه حقا العظيم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس دعاء فيها سبحانك اللهم أتيتم فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين samay jigéen na ngeen muñal suñuy baay suñuy baay na ngeen muñal suñuy yaay li nga xam lépp yi nit boo ko xamee boo ko waxee penc ba tas da xam ne kii li mu wax du dëgg waaye maslaa ko da am xam ne sama borom kër gi li mu wax tey nii déedéet dafa doon wëndaalu ci àll bi rek waaye nangul ko ngantam alkamalullahi mot cëru yàlla la sa soxna na la ne lii fukki dërëm laa ko jënde fekk dërëm la ko jëndee nangul ko nangul ko dama demoon ci teen ba fekk ca pénc bala demoon nangul ko dañ la ko dénk ngir nga dimbale ko nangeen dund dem du Seydina Omar bun Xattaab Omar ñëw na ci këram soxna alsee la ko di coow di coow Seydina Omar sëgg benn ndaw si noppi mu ne ko pare nga mu ne ko ma parel mu ne ko na nga mottali euh, taab bu bënal dafay gaañ borom soxna si kersaw Omar di génn ki mu àndal ne ko ne ko yow bëqat nga yaa ngi coow fii ci dëkk bi ndeke yow nii nga doonee tàppet mu ne ko noppil kii bu ma solee lu sedd moo ko fóot bu ma lekkee lu neex moo ko togg bu ma naanee lu sedd moo ko root bu ma duggee ci néeg bu am cuuraay moom moo ko def bu ma yàlla nattoo ba ma dellu di nit ki lay àndal ci lal bu ëmbee man maa ngi nelaw moom mi ngi wéeru ci bopp lal buy wasin sans gagne san perte la mën na dee doom bi judd ñu nangu sant bi ci moom jox ma ko ëllëg bu ma ko yónnee yaay bi yónni ko mu bàyyi bu yaayam def sama bos kon bàyyi ko mu wax lu ko neex man nangul naa ko euh, yële kon bato bi mu ngi koy andi yeneen yi euh, am na buñ ci andi bii man lañ ko may incha allah maa ngi ñaan yàlla kilifa ci réew mi yëpp ma may leen ci waaw bëgg naa kenn ku nekk ci taalibe même boo ko mënta jàng na ko wut muy sama kóllëre ak yow bu ma nekkatul àddina tamit li may wax xam naa ko xam naa mooy àddina gi dara neexatuma ci comme yéen mot ngeen nii euh, lii doy na ma xale yi fi mu nekk ñoom ñëpp seen xol tooy na bu dee seen sago la ñoom ñëpp ñu dagg seeni at jox ma waaye nag lii la yàlla noonu tàmbali ngeen xam yoon bi bu ma fi nekk ak bu ma nekkul yépp xam ngeen yoon bi li ma bëgg xam ngeen ko li ma bañ xam ngeen ko ngistalu ci dara tey mënoon naa nekk ci gouvernement bi topp ministre yi rek waaye li may am ci sama néeg doy na ma man bés bu nekk sama dépense mooy juróom-ñaar fukki junni trois cent cinquante mille weer bi muy dix mille dix million cinq cent mille président mënu ma ko jox benn weer la ma koy jox ñaareel bi du ma ko jox te maa ngi tey xablul wusul di sama course yàlla mi ma koy jox lii bu ma doyatu lu may doy li may dem ci bureau yi di leen ñaan naa toog ci kër gi def salaatu ala nabi naa ziyaara ji bàyyi ñes ñaan ko naa dem ñaseen lew na ñaan ci barke maam alaaji abdoulaye naa dem tiwaawoon ci bàmmeelu Maodo Malick naa dem Dakar siyaare ji Seydou Nourou Tall li may dem ci buntu gouverneur buntu préfet naa ko wax ci yàlla kon ma am ko te kenn du ma sikk bu fi kenn jóge dem di ŋàññi keneen na ngeen fonk tuuba fonk Medina fonk Ñaseen fonk Kaneen Medina Gunaas jaamal te kenn mënu ko jeexal kenn ku ne fa nga jëlee wird na nga ko fonk alayka salaatullahi thumma salaamu